yaa xayra day fil aadaa fil baydi wal madaadi halan wa sahlan wa ahlan bil baadi laa adaadi ñu ngi leen di sant bu wér euh, di yeesalaat kon sunu cant ak di feddali sunu laxasaay ci toolu Sëñ Tuubaa ndax boo amee ndigal lu toll nii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 korite ga ko ga ca topp fekk ko ci géej gi murum koor sax amul ko mu ko jox bu geesoo it gisul kenn ci ginnaawam koo koy xaadimul Moustapha liggéeyam boobu nu liggéey nag digganteem ak boromam ba suñu boroom fay ko li mu ko fay ba tey jii ñëpp jublu ko ku bëgg lu baax it war a jëriñu ci suñu borom ñëw ci sëñ Tuubaa kon nun su fekkente ne weeru koor dikkati na a Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko dundalee nii di fàttali njaaram yu jëkk ji suñu amee tawféex ànd koog moom sant rek moo tax bàyyiwuñu dara tout le dispositif euh, requis jël nañ ko ci côté aménagement ci côté sono euh, de puissance ci côté tamit plateforme boo xamante ne it dina permettre presse bi média yi centaine yi nga xam ne de euh, de de de ay réseaux sociaux yi nga xam ne ku ci ne yaa ngi jàllale direct ñooñu ñëpp ay téeméeri téeméer la loolu lépp tey jii dispositif buy tax mu mën a am ci wàllu euh, suñ koy wax xam nga da daal di xam ne foog nga am internet au bi boo xam ne da koy fàggu loolu lépp def nañ ko li ci des nag organisation la ak tamit yarak ak teggin nga xam ne mooy sunu ngànnaay xam ne njabootu sëñ Tuubaa gi kilifa yi nga xam ne it ñooy rakki boppam sëriñ bi euh, ñooñu nañ fexe ba yaatal leen ci biir saal bi kuréelu xasida bi fi ñu nekkit ñu yaatal ko su ko defee nag mbooloo mi moom gën a fare ci bi biti rawatina waa Hizbut Tarqiyyah ñoom defe naa ku ne xam na leen ci yar ku ne xam na leen ci tënku ci ndigal amul ci kenn koo xam ne di nga jéem a yaakaar ne yow lii nga yeyoo wala lii kon defe naa loolu mooy liggéey bi ñu ngi sant nag bu baax a baax a baax a baax sëriñ bi mi nu ko dig daan digal dimbali nu digalaan nu ko yàlla nañ ko yàgg ànd ak moom te yàgg ci am ngërëmal sëñ Tuubaa Hello.